jullit di bokki kita yi ñoo ngi leen di li nuyo Serigne Alioune Mbacke mi tok ginnaaw bu mu leen fay am nuyo di gendi ko bu baax ci nuyo bi imam Serigne Modou gey mi tok ak mboole mbokk yi mu andal Serigne bi bëgg ñu yëkkatil ko kaddu yu dana ci jéggulu sax mboolem ñi nga xamni ñom la andal bis bi ta baaxoko and ak ñom dëgg la ku ku mën a doon ku ne ci bokk yi ak wëllër yi ak xarit yi ak am di jàmm yi jox na la cër bu toll di ba mu la joxoon démb ci bis bii waaye kat spécialement jox na sëñ Modou Gueye cër boo xam ni tey jii joxu kenn ci daje bi loolu nag ci murit rek la ko sukkandikoo ndax moom murit la bis bii ay attan yi ngi mu di ko def di ci jot ñaani sëriñ bi ak ndimbalam waaye ren jii mu am ak yokku mbir nag bu yokkoo la sabab yokk ga cant da cay jëm ni mu aada woo doxe te muy dox yi nu murit mooy booy dugg ci mbir dem ci sëriñ ba bu mbir ma sottee nga dellu ca sëriñ ba noonu lay doxe Cheikh Sidil Muxtaar mii di sëñ Touba bi mu demee wax ak moom ngir dugg ci mbir mii te di ko ca déglu itam déglu gu mat sëkk ci waawam waaw lay doon déetam dooy déet lay doon alhamdulilahi la wax bi sëriñ bi waxee waaw nangul ko bis bii nangu ko ànd ak moom nam ko daan defe ci at yi ko jiitu waaye mu dal di tudd ci aw làmmeñam ni ko nanga dem ca sëñ Modou Gueye mboolem lay alxuraan ja mu taxawe ko te jiite ko loolu nag moo sabab mëneesu la bañ a jox sëñ Moodu wàccuwaay wu spécial ndax day tànnuk sëriñ bi sëñ Moodu sëriñ baa ngi rafet lu jëf ji bu baax moom nag xam na ni ndaw la woon luñ yónni woon ci yow jotal na yónneen ba waaye matal nga jëf ji dana dellu ci ka ko yónni woon itam wax ko ni ba yónneen ba yegg it jëf ji mat na sa taxawaay bii nag yaa bokk yi ko ko àndal moom xam na ni defaloo ko ko ki ko yónni woon ci yow nga ko defal ki tax ñu woote nga ko defal waaye defal nga ko ko ko mat naka jekk xamal nañ sab taxawaay ci biir diine ji muy lislaam ak yoon wi te mooy taxawaay bi gënal sëñ Tuubaa mooy jàngale ak yàq loolu rek lañ xam ci yow moom nag ab jàngukaayam di ab rootukaayam di magam Serigne Mbacke soxna loo ràññi woon la te joxoon la ab cër ba liggéeyub yàlla bii leen fi seen wajuru bàyyi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke muy ittihaadu atbaayil xadim li taawuni wa sukki bi diinil xawim te yàlla dogal tey jii moom mooy secretaire général bi liggey bobé magam djuba ci serigne mbacké soxlo soxloo joxat na la ci cieur bo xamni ben ëpp ko ci muy jàngale ak yar yagal na ci serigne bi waxan ni ci biir kër gi bépp waxtaankat bu ñu tànnate mo war fee waxtaan na gisee ak serigne modou ba noppi ndax la muy wax mu càmbar ko ba xam dees na ko war a waxam wëreesu ko wax yàlla taw na ma man mii waxtaankat bu ñu xam ñu tànn ko war koo waxtaan loo maa ngi ànd ci sa kër mu exposé la mu war a waxtaane nga déglu ko ba xam lu su war a wax lam lu suur te wax mu dolli koo ci yaw door a dem loolu kóolute la woon kon sa taxawaay bii ndigal la yegg si ci waaye jëkkul tey sëñ bi di ko rafetlu bu baax a baax a baax bis bi nag jag na ba noppi ndax lii mooy baatin bi mooy saayir si itam anam yépp yi tax ñu woote bis bii ak tax ñu ko woote lii mooy solo si mooy alxuraan ji xasida yi sëriñ tubaa xaadim rasool mi tax ñu yónnee ci yow ngir bis bii te ki ko fi nekkal yónnee kenn mënu koo defal lu ko gënal lii moo tax dafa wax ni juróomi xeeti moomiin yi nit di moome dara benn danga koy donn mbaa ñu may la ko mbaa nga jënd ko mbaa ñu sarax la ko wala ñu jox la ko addiya loolu rek ay tax nit moom dara juróomi xeeti moomiin yooyu wu ci ne sëriñ Touba wax na ca ni moom na ca alxuraan ne donn naa ko jënd naa ko yàlla sarax na ma ko yàlla jox na ma ko addiya yàlla may na ma ko kon nag bu fekkee ni woote bi yépp day dellu ca moom jataay bii am ngeen dox liggéey bu tedd bii ci alxuraan ak xasida yay na sëñ Modou yaag bokk yi nga àndal sëriñ bi wax na ni ngën ji mbindeef day alayhi salaatu wasalaam lañ ko jagleel waaye dañ koo tànn ca biir tànn ka waaye ngën ji mbindeef ñu bari la inna allazina amanu wa amilu saalihaati ulaika hum xayrul bariati ngën ji mbindeef ñu bari la ngën ji mbindeef ginnaaw ñu bari la nag ña yonente bi sempi ni ñooy ña ca yow mii ci nga bokk yaak bokk yi nga àndal te mooy Kai man taallama al-qur'an wa allama alayhi salam neena ki gën ci bindé fi moy ki al quran te di ko jàngale te ci lool rek lañ la xam yak bokk yi nga andal suñ baa ngi lay sant bu baaxa baax mi ngi ñaan yalla na barkeb al-qur'an wacc ci mboolem ñi nga andal ak ñi fekke jotaay bi ak ñi aman yéene te suñ borom balkel daara ji te suñ borom motli yaakaar yi ñi wolu seenu njaboot ba dénk la leen tay ko liggéey bi wax ko ni mu doxé waye dana ko wax ni bama jotale yonent bi itam liggéey ba matna mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di jaajëfal alxuraan sëñ Touba ca xisaam bu siiw boobu ak sëriñ Ndiasse Cissé te mooy sëriñ bi sëriñ Ndiasse daa ñëw ci moom mu ne ko dañoo wax ni man nga alxuraan mun ko wax nañ ko sëriñ bi ni ko taril ma baqara ak ali ak nisaa ak maida ko sëriñ bi déglu tubaarkàlla mu mel na mu war a mel sëriñ bi ni ko wax nañ ni man nga koo bind mun ko wax nañ ko mun ko bindal ma kaamil mu bind ko bindiin woo xam ni tubaarkal la sëriñ bi ni ko boo masaan bind ab kaamil luñ lay jox mu ni ko ñetti dërëmi ngurdu sëriñ bi ni ko koo gën a ci fere yi ci réew ma mu ni ko sëriñ sëriñ ma Samba Diop Sam sëriñ bi jël aw kéet bind ci ay baat ni ko boo demee nga jox ko ko baat ya mooy ndaw loolu jaase moomu ñëwee na teral kaamil bi bi mu ñëwee tàllal ko kéet wi sëñ jaase xool kéet wi mu jottali ko nuyoo sëriñ bi sëñ jaase ni ko boo masaan bind ab kaamil luñ la cay jox mu ne ko ñetti dërëmi ngurdu mu ne ko dinaa la ko jox fanweeri yoon sëñ Ndiassé ni jéeyi bëgg ko jox kaamil ba mu ne ko mën nga koo dimbali koo boo gisee keneen ko ko yittewoo man araf yi sëriñ bi bindu doy na ma bi sëriñ Ndiassé yéemoo dellu si ci sëriñ bi sëriñ bi daf ko ni alquran wal hadis wa manaafiu daaray ni lii alquran ak hadis ak njariñul àdduna ak alaxira maa ko moom sëriñ Cheikh mii ngeen doon defal liggéey bii Baye Cheikh Mbaye dikkre nee na dañoo moo Serigne Cheikh a jàngandoo dañoo toog bis bi nga xamee ni Serigne Cheikh adduna sépp wuy si na ko te adduna sépp xam ko nee na ma toog ba yàgg ma wax ci samam xel ni sëti Serigne Mbak Serigne Touba yi ma àndalal jàng alxuraan daa mel ni sëñ Mbàkke ma dinaa ko ci dese nee na ma wax ko ci sam xel nee na ma Cheikh Mbaye bokkal nga sóoratu Yaasin ne man ko ah waaye sëñ bi xanaa xamoo ni man nga wax mun ko taril ma ko nee ma dem bay tari gan yegg si tey mbokk tama xam sëriñ Seex ni mu mbokk raw ni mu fonke mbokk tamuy gan ma ni teg mu ni ma taril ma ni ko dama bëgg nga dalal gan mu ni ma danaa ko dalal danaa la déglu nee na ma dal di tàmbali aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim yasin walqurani alhakimi innaka la min almursalin ala siratin mustaqim waaye ci gàttal nee dama damaa jamuj tabbi mulki mu ni ma delloo si ma te mi ngi jàmmanteeg gan gi may ba yàgg ma jamu dugg bàqara mu ne ma delloo si ma te mi ngi jàmmanteeg gan gi waaye nee na jamono ñaareel ba ma nee euh, taaxusuhum wahum yaqasimuuna nee na daa mel ni palaat yi ci bi dañ leen a yëngal mais sëñ Cheikh ni ma Cheikh Mbay dama mokkale woon alxuraan ba fii mu ne nii ko mokkale te Cheikh Mbay maag yow yam da ngaa ne ci anglais bi wutub dërëm yow it nee na keroog sëñ Cheikh wax na ak sama xol kon. nit ki jëmm ji ñu defal alxuraan yayoo na ko ku mënoon alxuraan ku ko fonkoon ku ko bëggoon ku rafetal aw bokkalin te dégg ko te rafet mbind boo demee ci kaamilub bàyyi sëñ jëmb sill faatiyee ja ca nekk sëriñ seex ko bind sëriñ jëmb siise sëñ bi jaar ci ay loxoom sëriñ seex joxoon nag ko sëriñ jëmb ci njëlbeen ga dañoo wax ne xel mi neexul woon lool wajurum wu jigéen indi ko ci sëriñ bi diis ko ko ndax ay mbokkam dañuy niti alxuraan sëñ bi ubbi ab kaamil jàng ca jox ko ni ko boo demee nga wéyal te boo jàngee nga fay ba boo mokkalee bi sëñ jëm mokkalee dikk ci sëriñ Cheikh ni ko daa bëgg a bind sëñ Cheikh jël kéet bind faatiyee jox ko ni ko wéyal mu tàmbalee bopp bopp bàqara faatiyee ji ca ne sëñ Cheikh ko bind bi sottalee ñëw woon ko sëriñ Cheikh ñu topp ko ba tubaar kàlla mu ni da koo bëgg a mool Serigne Cheikh jàppale ko mu yóbbu ko Maroc mool ca lu tubaarkàlla ñëw di ko wecc ko ba yegg ci Serigne Abdoul Ahad Serigne Abdoul Ahad xool kaamil ba tubaarkàlla mu ne ko ñaata nga ci am mu wax ko lim bu bari Serigne Abdoul Ahad pësséef ba bëgg nga sëñ Touba yëg yëg ba ci sëñ tubaa mu dal di lu toll noonu ci alxuraan kenn waru koo am tamit fi dekkal sëñ tubaa loolu man rek maa ko war a am dal di wecc ko lépp sëñ jëmb xaalis ba rëy ci moom. mu jàpp ni waru koo am jàpp na ni dëgg la alxuraan barkeel na waaye sëñ Cheikh bi ci tàbbee tax mu dikk ni sëñ Cheikh xaalis bi la man moomu ma ko lii lii mënu ma koo am sëñ Cheikh ni ko yaa ko moom mu ni ko moomu ma ko mu ni ko kon delloo ko sëñ Blaat mi la ko joxoon bi ñu demee sëñ Blaat ni ko kon nan wutal sëñ Touba kërug alxuraan defal ko ko fi mooy sababu daari kaamil kon ku sëñ Cheikh ku am jeexital la kuñ mën a waxtaane ci alxuraan kon defal ngeen ko ku ko mat mi ngi leen di sant bu baax a baax mi ngi leen di gërëm mi ngi ñaan yàlla leen ko teewe déwén yu bari te suñu borom wóotudu ci suñuy soxla te dajal leen ko namunu gënale te dëppale ko ni ko gënal wasalaamu aleykum wa wa barakatuh